bismillahi rahmaani rahim tey jii ma jël saa daaja ak samay pilim ngir tagg sa waaja kafes dell ak alim tey jii ma jël sa daaja ak samay pilim ngir tagg saa waaja kafes dell ak alim xam ngeen ki ñuy defal émission xamle bañ ma a xam te maam ya luñ ca umpule turam wa daa sell santam wa daa neex mooy abdourahman loo boroomi tawféex baatam ba leer nañ ba mel ne jant buy nettali xissa doomu ab lënt yaa bëgg bamba yaa bëggu njabootam yaa bëgg ay satam te bëggi taalibeem te xol bi daa ubbeeku ñëpp nga xajal yoo xataloo kenn de maay ki lay woyal man abdourahman rek mooy ki may bégal man abdourahman rek mooy ki may sagal moo tax damay bëgg fu ma toll saa yu ne yow Abdou yaay ki jara tagg bis bu ne tey jii ma wax leen luy émission xamle yéen ñi xamul tey laajte naa leen dimbale su ngeen xamul seen maam yi ànd ak Bamba moo leen di wax lañu dajoon ca Cheikh Ba ci wal fu lay amee amul beneen rajo bul jëm ba jàpp am média mbaatib rajo yow ma arbaa yi ak aljumaa ci fukki waxtu ngir boroomu fàtte tegal na fan weeri minute fi layli ginnaaw xibaar yi war a am fi layli cheikh abdourahman ànd ceeg jigéenam day soxna aminata mbooj nee leen naam mook soxna aminata mbooj yal na nu am luñ mën a wut ci seen liggéey yal nañ ko am yàlla na leen Cheikh Bamba Faye ba ñu doyal lu kawe seen njortu bisub yomal jamal man Moustapha Bachirou maay ki leen di woy dama di ndaw waaye ma wax leen lu rey yow Abdou ñaanal ma ma dem ba mën a woy baraw sama maas yow mi am lii gën gi may ñaanal ma man ma mën a am ngërëm lu doy ci cheikhi am satu mi doon cheikh bi ma doy sopp yi ak ambassadeur ub xamle yàlla na ngeen xam lépp luñ fi xamle amina amina ne leen amina ci darajey Cheikh Bamba may Mawlaana yàlla na yàlla nangu woy wi ma la woy te may la mi am li gën ju may subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin